jërë ngeen jëf mbokk ñu teewlu si biir net bi TV Sénégal di ñëw yéen su lu ñeel mbiram Mansour Diop Sen TV moom nag si ab xibaar ñu ne rek dafa daal di démissionné lu waral nag boobu lay démissionné xamaguñ ko wante nag bu ngeen fàttali ko ay jamono ay semaine passé xawoon na si am rek ay gisengas ak njiital des médias di Bougane Gueye Dany Euh, si li waral ñu tëj euh, compte de médias yi taxoon rek euh, kii di Mansa Diop doon sa àdd rek kii di Bougane Gueye Dany nag daal di oote direct di xamal Mansa Diop boppam wante nag lu ñeel démission Mansa Diop xamagun lu waral boobu lépp démission mais nag fii si net bi TV dee leen toppal xibaar yi ba lépp rek lu ngeen si bëgg a xam da ngeen ko xam fii si net bi TV Sénégal.